mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yasqahu qawli maa ngi sant yàlla bu baax di julli si yonente bi di sant sumay ñaari waajur di wax jërëjëfee Baye Niass jërëjëfee Baye Niass jërëjëfee Baye Niass amuñu fayam l'international di ziar waa Medina Baye yëpp suñu xalif général yi Papa Mahi Niass maa ngi koy ziar bu wér di ziar mboolem mu xadd mu bàyyi di ziar taalibe Baye yëpp aarif yëpp ma di nuyu dëkk bi nga xamante ne fii rek laa am man fii mooy suma sees le géant du Cap Vert fii mooy sees man ama furul ngor ngor kese laa am moo tax ku may fekk ngor nga may fekk mais bu jour ba dina xam ne laal na waa ngor Mbaye Tine daf ne xeer bu njëkk bu ñu ko xamee wala xeeru ngor day nekk xeer bu wow mais xeer bii sax moo gën a nooy mat la lamb yëpp xam nañ ne Mbaye Tine maa ko man taf moo ko daan naan du moromam parce que dama ko man li ma la waxoon bi wax maa ko maa ko daa a bëre maa ko daax a xeex maa ko ëpp fit li may wax nii barki alxuraan lu ma gëm la te awma lu ma ciy la du ma ko xaar fu mu nekk dinaa ko fekk duma ko daanaka yaa dañoo yàkkamti parce que xam nga la moo tax le 27 novembre si bu ngor daa war ñëw doggali looloo waral loolu non père Tafa Gueye taxaw na wax si affaire Bécaye Mbaye ne xeeru ngor daan na boo yëmbal recours bi génn na du ma ci wax mu suma ginnaaw comme moom moo daan boo yëmbal avec la manière bu jour baax na dëggal bu baax ma daan ko avec la manière lu leer laa la wax gis nga nit boo gëmee sa bopp nit ñi dañ lay gëm mais boo gëmul sa bopp kenn du la gëm déglul fële déglul fële si kaw ay léebu lañu ay léebu lañu ñun duñu arrière duñu tiit duñu xof duñu ragal. mais am moom it dafa am kooku du sang nga ne kooku poulain nga Alioune Seye Alioune Seye nga ne Alioune Seye deux lan am la ah Alioune Seye booy boobu la koo jàpp dóor ko ba mu màndi daan ko nga may Alioune Seye man dama xool Alioune Seye dawul suma yaram waa Waalo yëpp écrit Waalo daw ñu suma yaram li nekk si man laa gëm gëwuma leen sama bopp laa gëm man gëwuma keneen sama bopp laa gëm ñoom li am ñoom la mais man lu ma am su ma ñëwee dama koy indi te moom xam na ne am na bés parce que maa ngi koy gis émission bi passé moo moo Lamine muy muy yërëmtulu lu muy yërëmtulu góor nu muy bëree góor di yërëmtulu mais ñëw di okkat ay loxo naan li mu waxoon ak nangam ma yooyu new ma si li ma waxoon maa ngi si mbaytin ñi muy àndal am na ñoo xamante ne su may doomu ndey la ñi ray bagaasam boo bëggee sax moo lu gën a pire loolu séru mu daan contacté mu ngi man séru mbaytin mu ngi man loolu lan moom moo dugg foofu moom moo ne kama naan fi naan su ma gaañoon la ma wan ko ne maa gën a doon cedd maa gën a doon ceddo nee na dafa bëgg ngeen taxaw xeex te yow ku ne xam na ni xeex moom moo toog dugg ci robinet bi naan tànk ndox naan nga yem bu bëggee dina xeex bu bañee dina xeex loolu jël ma ko yaakaar bëgg a jure bañ jure jure bu indee ba bëggee dina jure te ba juree dina daw bu indee bëre ba indee bëre dina daanu te bu daanoo dina yuuxu arbitre prix yaa sa diggante ak mbayte arbitre siffle rek nan nga fas yéene wane su ma ñaanee ba ne asalaatu wasalaam ala rasulillah si kawam laa jëm kese amul lu may si moom lu may ragal ci moom man dama war a doon ab futur roi des arènes man su ma naree ragal Mbaye man naa bàyyi làmb ñi ma bëreel ñoo gën a métti Mbaye Tine coolee fi ne rek muy bari wax di wax mais bu jour ba lu mu wax dina ko réccu lii man maa la wax. le 15 octobre ci wàllu mobilisation gis nañ Ngor gépp génn te promoteur bi actuellement nii euh, arène nationale la ko tëgg te mbooloo bu bari ñu ngi leen di xaar ci wàllu mobilisation foj tool. waa di woo ñëpp rek di leen wax ne ñëpp teew. parce que gars ñu ngi si biir jënd nañ cinq bloc xam di wax ñi si war a jàpp nañ si jàpp mais di wo cinq bloc jënd nañ ko loolu yàgg na mat na deux semaines xeeru ngor lañu gor gor mu indi ka gàngas dégg gi baase ñeyu ngor xeeru ngor góor góor mu cosaan la de moo amul cosaan fu cosaan na waalo dañoo bañoon <laughs> ah waaw dañoo bañoon ay taan wooteel mais di woo ku mel ni ñu ma daan jàppale mon père ni son papa docteur ñaa borom suma assistance xam nga sama sponsor mais di lancé benn message balaa may woo kenn di wax ne na ñëpp ñëw taxaw ñu jour le 15 octobre parce que man dama ciy bëre birigal bu ngor da ciy bëre te dañu war a toj stade bi parce que gan yi duñ doy boo ma la gan gi de gan yi buñ woon ba géejawaay birigal ki muy bëreel rangeloo ba Kër Massar dañ leen di daan ba foofu allah liggéey yi bokkul doole yi bokkul ñun brise de mer bi ñuy noyyi ak ñoom li nooy noyyi bokkul bokkul fii boo tëddee di nelaw da am doole mais fee boo entraîné boo bëgg a dee doo am te booy am tuuti ngay am waaw na bàyyi xel loolu ngor gi muy xas waa ngor ñoo gën fa mu dëkk waaw ñun xooluñu fi mu dëkk ak li ñu am foofu voilà waaw. ayca wooteel wa jàkkaarloo moom wax ko sa kàddu yi mu li ma lay wax mooy fi ñu toll nii saagante. li ma lay wax kan li ma lay wax yow Mbaye Tine saaga yàkkamtee xeex la. loo waxoon bu jour ba dëggal ko man lu ma wax dinaa ko dëggal ci kàttanu yàlla fin la bu fi gaañu gaañu lu bu ma la daan nga naan ay dama lii wala dama manqué lee dara manqué wu ko na dëggal boobu am su ñëwee dinaa la dóor a dóor ba ñu doon si daan dañuy neewi boo bëree dinaa la bëriloo ba ngay yuut ma daan a damm la